salaamaaleykum man Modou Lo maa ngi jox ñëpp rendez-vous diggante Xoyantaan ak Baye Mandione ci Gambie ah. mu ne tël Gambie jàkkaarloo ak moom dina xam ne golo golo du golo du kañe yow yow xamoon nañu doon simb gaynde la dama lay laaj rek yow xamoon nañu doon simb na. ba léegi da koy def. ah déet xaw ma di jaar na ci di. man xamal ma ci intéressé na taxaw nekk doomu aadama rek en tant que loxo noor bëggeen baal man xam nga lan laa xalaat ñu bëree ba pare mu ñëw faama asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñuy suivre ci seen site internet luttetv.com mercredi 30 octobre 2019 ñu ñëw ak ci yéenekaay yi comme ni ngeen ko amee chaque jour moo koy seex ak Boucar Ndour Kor Mama borom jog borom Loora borom Mbeelo ngi borom Jaxaw ak seen Boucar maa ngi lay ak Saloum Lamine maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu mbokku Sénégal rawatina mbokku internet TV yëpp Lamine ni nga ko waxee tey la le 30. octobre 2019 ñi ànd ak revue de presse bi waa Vice FM Bassa Gambi di jë moo ak waa Birkelane FM di jë Babacar Sarr ak seen auditeurs yëpp la men waaye di si àndaat ak waa MSD Prestige ak comme ni ñu koy waxee chaque jour rek ñuy jaay ay oto di loué ay oto comme ni ma koy waxee rek gàmmu gaa ngi ñëw burdu bi ñëw na képp koo xamante ni bëgg nga di dem ci burdu bi mën ngaa dem ci waa MSD Prestige ñu loué ñu loué la oto climatisé ci njëg gu ñuy xéwale boo bëggee sax nga jël ko 10 jours yëpp. ba gàmmu ga ñu jox la ko ndax lu jour yi di gën a bari rek ñuy gën a wàññi li nga xamante ne mooy seen njëgu location di jaay tamit li nga xamante mooy oto yi képp koo xamante soxla nga seeni oto pour gis ko da nga def 3w point msdprestige point com di nga gis oto yi ñuy jaay bu kar waaw Lamine waaye tamit di jaay li nga xamante ni Lamine moo di pièce détachée maanaam MSD impact seen pièce seen seen site internet nekk nekk msdimpact point com ñu jaay pièce détachée maanaam pièce de boo fa demee ñu jaay la pièce bu ñu amul pièce bi defaral la commande livré la ko dans 15 jours la loolu tamit yaakaar naa ne xéwal la. loolu xéwal la MSD précise rek la am MSD impact ñu soxla seen numéro téléphone te nekk Brésil ak li wër Europe bi yëpp Sénégal Afrique bi yëpp. waaw la fu si mel Italie da def plus 39 def 329 316 10 87 li féete Brésil Lamine ak li ko wër da ngay def ak li wër da def 33 835 72 83. loolu mooy numéro MSD Prestige ak numéro MSD Impact ñu ñëw ci journalu record ak journalu sunu làmb commencé ko nag ci journalu record plan B. pour affronter ki nga xamante ne mooy Modou Lo ko laay mi nga xamante ne moo ngi ci tànk yi ko adversaire ginnaaw bi mu juboo ak Modou Lo ci côté yëpp bëggoon ko jox ki nga xamante ni mooy Ama balde dafa mel ni tafa tafaati nag mooy plan B bi tafaati nag accepté na pour jël li nga xamante ne moom lañ fayoon Ama Baldé di quatre-vingts millions. waaw Lamine li li li ñuy naan la rek Lamine bu ñuy bu ñuy bañee lii maanaam am na ñoo xamante lamin dañ koy bëgg Tapha Tine Lamine yaakaar naa ne boo ko fayee quatre-vingts millions ak contre Modou Lo bu ko nangoo war na ko jaadu na pour mu nangu ko vi fi mu jógee circonstances yi mu jóge si làmb yaakaar naa ne Lamine loolu noonu avantage am lay doon mu jóge fi mu jóge rek dem di affronter directement ki nga xamante ni tey moo di roi des kon yaakaar naa ne loolu euh, avantage am la chance am la kon yaakaar naa ne war na mën a jël loolu noonu war na mën a jël loolu noonu ginnaaw d'accord na ko kon ñu ngi yónni yàgg te incha ki nga xamante ne tamit mooy Euh, Tafatine wala boo taf safu Modou Lo ki nga xamante ne mooy Birame Gningue ndax mardi lañ leen waxoon keroog bi nga xamante ne def nañ ay gëstu ba xam ni promoteur bi moo ngi démarché combat bi incha allah dinañ leen woowaat ñoom ñëpp pour xam fan la wànnenti di mujjee ak ay bëtam ñoom ñaar ñooñu nag lañ proposé woon ki nga xamante ne mooy Ama Baldé mais combat yooyu su taxawee kan mooy nekk le grand perdant bu Korndo. le grand perdant Lamine moo nar a nekk Ama Baldé rek ni ko journal bi de defee rek maanaam tey mu nar a nekk ñaari combat yoo xamante ni Lamine. Euh, ñaari tentative yu combat xamante ne ñi ñi ko tëggal mu échec te échec bi yëpp nekkee si côté kon yaakaar naa ne moom moo nar a rek benn côté euh, li leer ba leer daal mooy ko ne mbëri moom ñu ngi bëre te te bu ñuy bëri la ku képp ku bëri rek am na benn pas booy def parce que mën nga bëri daanu sax waaye avec manière bi nga bëree la mu mel ni pas da defaat beneen pas en avant sa carrière. renouvellement des licences. Ama Baldé moom mooy première VIP boo xamante ni licencié na maanaam ab licence moom moo ngi ci poosam instant bi bu Boucar Ndour kon kooku mi ngi yaakaar bëre pourquoi pas digganteem ak Gris Bordeaux comme ñaar yi mënul sotti Ama euh, bu Garlo. waaw pourquoi pas moom ak Gris Bordeaux Lamine seen diggante sotti loolu noonu Lamine yaakaar naa ne Ama Balde warul warul warul warul a warul see mën a lii sa xel ñaar sax su ma nekkoon moom. Mm-hmm. lu mu bu ñu ma proposé contre Gris damay bëreek moom te xam ne sama avantage lay doon kon yaakaar naa ne li mu def nii tamit mooy wargalu bépp mbër bu licencié moom bu bu bu ouverture bi démarré rek renouvellement yi loolu dafa baax si lépp. loolu am na solo waaye nag dafa mel ni journal bi nga xamante ne mooy record ki nga xamante ne mooy Abou Ndour xëy na def benn jàngat maanaam VIP yi nga xamante ni jàpp na ni teg bi nga xamante ni war nañ koo teg seen place seen écrit gis na ni defuñu ko tudd na ci ku mel ni Balla Gaye Modou Lo ak tafaatin dafa mel ni valeur écrit xamuñu ko. dafa mel ni valeur écrit xamuñu ko Lamine waaye daal mu mel ni daal euh, ñooñu noonu.

Gris Bordeaux

ni euh, day professionnaliser mbër. gis-gis la nañ ko nangu li nga xamante ne mooy gis-gisam am na expérience yi métier bi su ko waxee rek mën na koo layal te yaakaar naa ni layal na ko ci journalu record bi war nañu tamit ki nga xamante ne mooy rëg-rëg le roi de lutte simple nan lañ ko waxee Boucar ah MMA bi nag moom ma ngay waajal combat bu baax a baax moom jinne caaro yi. waaw Lamine suñu xale ma suñu grand rek abu Ndour suñu doyen mu mel ni daal moom jamono ji Lamine. dëddu na mbapat bi temps nii ma nga États-Unis fàqamaan bi di waajal combat MMA am la weekend de feu ci lutte simple bi ba léegi rek diggante samedi vendredi ba dimanche 4 millions cent mille la ñu teg ci taabal waaw Lamine mu mel ne vague weekend bi moom Lamine nar naa tàng nar naa neex parce que vendredi bi lamb am na lamb am na Dakar waaye ñun am na lamb bu am mar boo xamante ni tey Lamine fan si club Georges Poite bu mar ñoo ko tëgg mu nekk drapeau Papis Xarañ hmm. yaakaar naa ne Leewtoo TV dina fa yónnee ndaw hmm. waaye vendredi bi tam Dakar am na mbapat dimanche bi Dakar amaat ñaari mbapat kon yaakaar naa ne Lamine ñi jotaloon seen licence nañ profité def Lutte TV moo leen koy jox ñu ñëw ci journalu sunu làmb moom tamit li ñu soxla ci làmb lépp daf ñu koy jox ndax 2005 wala 2006 ba léegi ñi ngi wane seen bopp ci làmb bi ñu xëyee seen 8 pages yëpp ci làmb lañ koy def Boucar Ndour moom nag tafaatin la ñu xëy wan comme ni ko record defee gannaaw bi Ama Baldé ak Modou amee ay jafe-jafe journal bi dëggalaat na ko fii di wan ñu tafaatin ma ngay satu nag di wax ni li na ko laay moo ngay négocier ak tafaatin comme plan B ni ko journal record waxee. waaw Lamine comme plan B rek di ko journal waxee rek ko journal record waxee moom la ko sunu lamb defee waat rek Lamine si xëtam bu njëkk mu mel ni tafaatin daal Lamine moo nar a nekk moo nar a gagné jackpot bi maanaam te yaakaar naa ne bu bëree ak Modou Lo 80 millions Lamine loolu yaakaar naa ne dooy Euh, ak par rapport ak fi mu jógee par rapport ak euh, Modou Lo tamit fi mu nekk maanaam nekk roi des arènes nga ñëw bëre moom am kase bu baax ba pare bëre hmm. moom am ay chance pour mën ko daan ngir mu nekk roi des arènes loolu hmm. yaakaar naa ne Lamine euh, Euh, nekk na proposition boo xamante ni Tapha Tine war ko mën a bàyyi mu jàll. muy nekk deuxième chance ci moom tamit muy war a bëriwaat combat royal parce que dafa woon na ko 2013 a tolloo millions lañ ko yokkaloon lañ ko bind yaakaar naa yokkalaat nañ ko un sax ci bee nga xamante moom la daggoon dem États-Unis ñu fekk si fii benn face à face. waaw Lamine kon yaakaar naa ne loolu yëpp nag Lamine day nekk avantage rek kon yaakaar naa ne bii tey tey mooy Euh, euh, euh, avenir u làmb wala làmb moo nga koy may muy croiser ki nga xamante ni muy croiser rek roi des arènes kon loolu Tapha sans la boo xamante yaakaar naa ne bu ko saisiré dina seree boppam dina def li jël nañ rakk ji njaay tamit nee la woon rek waaye jàpp na ne daal le grand retour de Tapha moom Tapha Tine néewluk ñu nar a gis ci arène bi. Tapha Tine néewluk gis ci arène bi Papa Sow néewluk la papa bëgg ñu gis ko père de Papa moom tamit dafa mel ni ab saaga moom yulli na ko la ca nekkoon yépp nit ñi gis nañ ko wax na ci diggante Papa Sow ak Siteu Papa ak waa fas Papa ak ki nga xamante ne mooy Gris Bordeaux mi nga xamante ne mooy troisième tigre de Fass nee nag amul benn yoon boo xamante ni nit ñi ñu ngi koy tànte pour gën a jegeele Papa Sow ak nga xamante mooy Gris waaw Lamine papa moo nekk di wax rek maanaam bi ñu ñuy jógee jamono ji yëpp naan Papa moom dafa war a génne face mais ñoom ñaar tamit nekk ay mën a fexe di jegeelale seen seen bopp balaa kenn di leen di jegeele waaw loolu tamit Lamine si li bu lii la rek maanaam tey làmb moo nekk loo xamante mooy sport boo xamante ni Lamine fois bu ngeen si nekkee te amoo amoo leen benn benn maturité bi ngeen doxee rek tey Lamine pour nit ñi fii wala leen day métti parce tem nit ñi di jàpp ne Lamine Boucar tem nit ñi di jàpp ne Boucar mi Lamine mooy sa rival wala daf la teg choc wala daf la teg bët boo doxee loolu noonu Lamine pour sa entourage sax day jafe te yaakaar naa ne loolu noonu nit ñi war nañ si mën a bàyyi xel. kon nit ñi duñ bàyyi weer ci benn fan bu ko waaw nit ñi bàyyi weer si benn fan mu mel ne daal Papa ak ki nga xamante moo di Gris Bordeaux Lamine bu la nit ñi bàyyi woon yaakaar naa ne tey jubóo dina am seen diggante normal. pourtant nag ñoom ñaar jubóo woon nañ di ay temps parce que gis nañ fi ay combat Papa yoo xamante ni euh, da ciy taq rip gis waaye du ñuy fréquenté maanaam tey du ñu demlante du ñu dikkalante fréquentation mooy tey comme Papa Sow tey ni muy def ak Modou tey war na ko mën di def ak Gris Bordeaux comme tey nit di nga am nit mu nekk sa nit ngeen seq jàmm waaye du ngeen fréquenté maanaam affinité bi war du ngeen ko am parce du ngeen demlante du ngeen dikkalante loolu day am wax na tamit ci diggante Papa ak dirigeant yi nee na moom li ko wóor li ko wér te wóor ko mooy Mbaye Guèye ak Tafa Guèye moom dina nekk ci derrière derrière Papa Sow maanaam dinañ ko jàppale moo leen war parce que Papa Sow nekk seen écrit nekk seen ginnaaw yaakaar naa ne ku xam Papa Sow ba tey Fass nga ko mës a xamee gaa nag parcelle la dëkk am na tamit relation ak ay mbëru parcelle waaye daal moom mi nga xamante ni te moo di Aly Dia di way jur bu góor si Papa jàpp na ne Papa moom bu waree bëre Mbaye Guèye ak Moustapha Guèye moom dinañ ko gunge Mbaye Guèye ak Papa dinañ ko gunge Lac de Guiers numéro 2 moom tamit jàpp na ñëpp di def comme ni muy def maanaam di ñëpp di bëree comme ni muy bëree làmb ji moom waaw Lamine Lac de Guiers moom am na ñoo xamante ni tey noppeeguñ di ko sànni ay xeer ku si mel ni tey Aliou Sow di papa moom jàpp na ne Lac de Guiers moom bokk na si mbër yi nga xamante ji nii dee na waaye nag euh, père Ali Sow moom tamit wax na ci li nga xamante ne mooy combat Papa Sow ak Siteu jàpp na nag Papa Sow amul droit def erreur ci combat boobu noonu li mu li ko war daal mooy lu leer nañ ndax loolu rek moo koy xaar ndax dafa jóge ci ñaari defet bukki nee na xamul dëgg waaye li ñëpp waxee dëgg Lamine Papa Sow amul droit def erreur papam lu la confirmé waat rek maanaam que ne comme dafa comme dafa am fu mu yegg ci làmb ñoo bay bëreeg Siteu war a def fula fayda ak jom waaj gi nga xamante ni Fass ñu ngi koy waaj pour jël ay mesures yoo xamante ni duñ ci deltu ginnaaw maanaam benn mbër dootul am droit def li nga xamante ni neexul dirigeant yi neexul ki nga xamante ne mooy président Abass Ndoye moom moom ànd na ci nee na moom dafa d'accord ci loolu noonu te bu ci kenn jóg. waaw Lamine loolu mooy yoon sax euh, muy kër muy institution ak lépp lu mënta doon nag Lamine bu amul règlement intérieur rek Lamine dafa am anarchie te loolu ne bokkul su luy su luy su luy su luy jëmale écrit wala structure kanam. combat Modou Lo ak Ama Baldé moom d'accord na ci bu baax a baax ndax nee na làmb ji dafa am soxlawu instant bi am ay mbër yu bees ñoo xamante ne dañ koy yëngal tudd na ci Ama Baldé tudd ci Boy Niang tudd ci rëg-rëg jàpp na ni ñooñu dañoo war a intégré ci li nga xamante ne mooy cercle VIP. waaw Lamine ba léegi rek Lamine yaakaar naa ne ñii tey rek Lamine ay magu làmb lañ yàgg nañ ci làmb kon yaakaar naa ñu ngi confirmer rek li nga xamante ni tey moo moo li ñëpp bëgg rek maanaam que VIP bi am relève pour relève bi am tamit foo nga jël ay espoir boole leen ak ay VIP ñu bëreek ñoom jaxasoo su ko defee ñu mën leen a mixé Lamine mën leen a intégré normal parce a mot 4 olympique bu ngor olympique de ngor du écurie ñoom booy bawal xeeru ngor numéro 2 ak Siteu bu ngor mi nga xamante ni xale la phénomène la seen bilan wu écurie la ñuy def six combats la ñuy def Boucar 3 victoire benn nul deux défaites. waaw Lamine nekk na lu nga xamante ni Lamine ay combats yu néew a néew a néew la ci écurie boobu noonu waaye nag li leer ba leer daal mooy ko ne ndam yi moom ñetti ndam la ñu am ñaari défaites benn match nul di ñaan xëy na déwén. ñu bëri lu ëpp loolu lu ëpp loolu noonu Lamine ni ni ni Kër Massar mbooloo def daal Lamine bëgg naa écrit di ko def plus de 30 combats nga koy am surtout écrit bu ndaw Lamine hmm. di def lu tuuti dirigeant yi loolu tamit mention spéciale à ñoom di jaayante ba boy yi mën a bëri parce que tamit investissement à long terme la booy bu nekk xale bu ndaw ngay fexe muy bëri Lamine bu bëree 3 à 4 combats 5 combats nag Lamine nga door see mën a gis sa bopp waaye am na ñoo xamante ni dañuy bëgg ngir ñu mën a bëri ngir ñu mën am lu dugal seen poste mbër yu ndaw yi seen yoon nekk aussi te loolu yaakaar naa ne doxalu làmb parce que làmb Lamine euh, dafa nekk continuité la rek te xale mooy doon mag. kii moom dafa bëgg doxal bu baax ren moo tax mu ngi rey boppam ci entraînement yi di Sa Thiès journal sunu làmb xëy wax ñu waaw mbër moom bu Lamine muy Sa Thiès keneen ak keneen ku entraîné bu bu arbitre sifflé di nga xe sa bopp di nga sa bopp ba tax na Sa Thiès moom li ko ñëpp xamee maanaam di entraînement na si mbër yi nga xamante ni Lamine ñu gën a respecté waaw loolu am na Elton moom tamit gisuñu ko daaw waaye dafa mel ni mi ngi dégg ne ren moom dina def retour en force. waaw retour en force loolu la Elton war a def moom tamit nekk champion daanaan ñu gëjoon ko gis lool lool depuis defe ak rëg-rëg daal depuis loolu bëriwul la men waaye ñu ngi xaarandi mu ñëwaat moom tam. général Malika ñëw na arène nationale ba jàpp journal bi jàpp ni moo ko inauguré. waaw journal bi jàpp na daal général Malika daal na si mbër yi inauguré arène nationale parce que moom tam ñëw na fa barki démb bu bëre ñàkk final yóbbu na Ayo Boucar Ndour journal bi tamit war nañu Modou combat des VIP cette saison Modou Lo et Gris point d' xam nga liy détonateur Lamine. laaj ko yow mi demoon. de bu waree exploser tey maanaam tey am na li ñu naan na ne jamono des yëpp Lamine dina mën a enclenché wu nga mën a xam ñi des kan ak kanay mën a bëre kan ak kanay suy tey Modou bu jëlee Tapha bëre ak moom rek Gris Bordeaux di ko mën a jox Ama Baldé keneen ak keneen ak keneen ak keneen nga jox ko keneen di nga mu seen bi di seen bi day ubbeeku nga xam ne nga mën a defar combinaison ba tax na daal journal bi di samplage pour ñoom ñaar naka la def ba ñu mën a bëre lamb ji mën a ubbeeku Modou Lo Gris Bordeaux Modou Lo Tapha Tine bu taxawee comme ni nga ko waxee rek Ama Baldé Gris Bordeaux loolu lamb lay la dese comme adversaire ak Gris Bordeaux su fekkee combat bi taxaw na. voilà ñaar ñooñu lay dese comme adversaire te xam naa ne Gris Bordeaux Reug Reug comme Ama Baldé. Gris Bordeaux lay dese Lamine pour mën a bëre moom moom. Birame ngi ba léegi rek indi na ay leeral ci combat bi nga xamante ne mooy combat Modou Lo ak Ama Baldé nee dañoo jox ki nga xamante ne mooy promoteur bi temps pour mu finaliser li nga xam ne mooy combat bi. waaw xam ma xam naa ne ultimatum lañ koy jox rek Lamine maanaam délai boo xamante ni tey pour mu mën a finaliser ak ki nga xamante tey moo di euh, amaa Baldé wala. tafaatin rek Lamine yaakaar naa ne képp kuñ ci lii xam naa ne dañ waxtaan ba juboo ci kaddu rek ku ci ñëw baax na waaye daal ay condition la ñuy lal kon yaakaar naa ne loolu war nañ ci mën a taxaw combat yi taxaw wax na tamit ci waxu Xaarim Gajaga nee na woo na ko téléphone te yaakaar naa ne wax nañ ba déggoo ci ci kaddu Xaarim Gajaga comprendre na waaw Xaarim Gajaga comprendre na Lamine ginnaaw ay jàmm kon y a plus de peur que de mal kon yaakaar naa ne daal euh, loolu am moo gën que ne tey ñu convoqué waat ay CNG wala ay yeneen coow di judduwaat comme que ñoom daanaka écrit bu bees lañu bu bees structure bu bees kon nañ fexe daal a am ta xaaral Tyson gën la bëgg a may pour ñu bëri. waaw Tyson gën gi xam naa ne jamono ji moom Lamine bu bëggee may Reug Reug chance tamit Reug Reug moom xam moom tamit mag la vétéran la yàgg na ci làmb ji waaye yaakaar naa ne Reug Reug moom Tyson gën bokkul ci ay plan waaw loolu moom yaakaar naa ne lu war a mën a nekk la ñu nuyu gars yi suivre le tv point com yëpp fooy mën a nekk ci àdduna bi ñoo ngi koy nuyu di ko ziar ko su jabam Henri Camara jot na ci suñu yóbbante kon Henri Camara ñu ngi koy xaar ko su jamono nee na Henri Camara dina ci participer moom en personne dina ci participer yéen ñu déglu tamit dinañ ci ngeen participer ci incha allahu dinañ dem ci ñi ñu war a dem président Doudou Diagne ko bëgg nañ koo seeti bëgg seeti yenn promoteurs yi lu ci waay mën a def nga def ko ci xaalis boobu noonu ñu jox ko Kassi Diop pour mu def opération bi nga xamante ne war na koo def ci bato war na ko mën a def même bu nekkul si bato bi tamit ñu génnee ko réew mi mu mën a dem faju Lamine si jàmm ak salaam parce que di fàttali tamit que ne bato bi Lamine ay inscription la yi nga xamante ni Lamine dafa jaar si yoon bu bu la mm. bi moom lépp gratuite la mm. di fàttali loolu nit ñi pour pour pour mu leer si bopp nit ñi bato bi képp ko ma faj gratuite la waaye amoon daw nañ si ay wéer wéer yoo xamante ni tey amul fu ñu dugul pour mu mën a inscrire waaye depuis loolu Lamine mu am problème pour mën a inscrire daal waaye daal course jabong ñu koy saluer de passage rek di ko jaajëfalaat si si loolu noonu mu def képp ku mu xam ko xamante ni tey Lamine la mën ngir Mamadou Kassé Diop mën a mën a mën a am wér gu ñaanalaat Sénégal jàmm layti seen namm naa la gëj naa la gis Madou Seen Mbay ngi sama frère Maam Waly Seen maa lay ziar patron El Hadj naa la trop moom tamit maa ngi koy ziar bu baax a baax patron Pape Ndiaye la. ñu ngi nuyu gars yi siifar di nuyu Abdou bu xarañ loo di nuyu ki nga ne mooy Petit Ndir li ma fàttali nag waa xew-xew làmb ji groupe maa ngi leen nuyu ñoom tuuti yaa Sarr Cukku maa ngi bu baax a moom tamit am na journée boo xamante ni tëgg na ko pour mois de novembre fële ci Adrien Senghor bi di nuyu Serigne Diour Khadim Bamba caatu groupe bi maa ngi koy nuyu di nuyu Abo doomu ndeyu Serigne Diour Omzo bu Garga man ngi koy nuyu di nuyu bu baax Mor Jaxate Seydina Aline borom jaasi ji di nuyu tamit ki nga xamante ne mooy Moustapha caaro yi ci borom cuuraay yi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax seddaay bi yónnee de di nuyu bu baax a baax ki nga xamante ne mooy coach jamono Mouhamed Ali Ndiaye champion du monde ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax comme ni nga ko waxee laay bu def ñu borom Sandaga ko a baax ñu ngi koy nuyu di nuyu Tigre Noir ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Saliou Gueye Thiès kan Tigre Noir day sànni xeer rek Lamine Seydina Alim borom Jaasi gi Lamine maa Ansu Fata Diop gaa yëpp gëj naa ko gis waaw moom tam gëj nañ ko gis loolu loolu loolu Lamine gars yi commentaire yëpp ñoo ngi gis commentaire yi am nañuy encouragé di bëgge di di jubandi parce que des fois xel du mat mais am nañuy sànni xeer Lamine di leen waaw taalibi si ñoo ngi koy jaar bu baax a baax a baax Lamine Seydina Aline gars yëpp ñoo ngi leen di waa garage Nioro Lamine ñu ngi leen di bëgg bu baax a Kamara ak gaayam yëpp Lamine ñu leen di ziar Ibrahima Diouf depuis France sama frère ak soxnaam El Ba depuis France ak soxnaam maa ngi leen di bëgg bu baax Lamine di leen fàttaliwaat rek combat Baye Mandione Xoyantaan le 15 décembre la première face à face bi dana am wala boog beneen face à face dina am fële ci Gambie le premier décembre na ko xaar waa Gambie incha allah waaw fan si club Boucar bi nag dafa am a takki su mel ne a takki jabar a takki jabar Lamine Euh, Issa Lofou sama sama sama sama frère Semou Diouf maa ngi koy ziar ñoom Cécile gaa yëpp soxna Awa Ndiaye ñëpp ñu ne sa groupe bi rek Lamine maa ngi leen di bëgg sama grand Babacar Ardim maa koy ñaanal moom tamit gudd fan loolu yàlla taxawal gën a dëgëral taxawaayam. jox maa ngi jox ñëpp rendez diggante xoyantaan ak Baye Mandione ci Gambie ah. mu ne tël Gambie jàkkaarloog moom. na xam ne golo golo golo du kañe de. yow yow xamoon nañu woon simbu gaynde la. dama lay laaj yow xamoon nañu woon simbu na. ba léegi da koy def. ah déet xaw ma jaar na ci di. man xamal ma ci intéressé na taxaw nekk doomu aadama rek en tant que loxo noo bëggeen baal bët gémmi leneen li ci des ay détails intéressé wu man xam nga lan laa xalaat ñu bëree ba pare mu ñëw faama